non am na xam nga déggoo déggoo ñaan foo gis am na raaf dem ñooñu ñoo gëmul seen bopp parce que man boo ñëwee boo fekk nga ma sam place man soo ñëwee sam place boo yoree sax 950 du ma la defaral xam nga ndax lan pourtant événement booy dan naa ma defal 2000 pourtant samay client bu mu leen waxoon 5000 ñu def ko mais damay yamale ñu yor ak ñu yorul comprendre nga fa ma waxee loo mën a am loo mën a xool loo mën a mel xooluma la man liggéey bi moo tax ma koy def bëgg bi ak amour am na ñoo xam ne nag léegi chaque instant ñu dugg si ndax lan xaalis bi wala booy jigéen ñi non non da koy bëgg ba pare boo ko bëggee mu nekk don si yow boobaa doo si gis loolu yëpp xam nga loo siy gis liggéey wàcc dem yóbbu denc pas yàq teral sa waajur parce que bu ñu nekkoon dañ naan tatouage affaire saleté la yi di taqa sa yaram man su ma la rombee ni la tatouage kat laa doo ma xàmmee man fu nit ñi di dugg di tatouage nit ñi di toog man fa laay toog comprendre nga loolu lan moo koy wan mooy gëm sa bopp bañ a xool xale jigéen yi yaa ngi liggéey bu ne liggéey amul amul nekk fii naan non pourtant boo sangoo ba pare bu la neexee dem gérer mais sa liggéey bu ko jaay tant que tatouage tant que gérer wuñu xam nga tant que tatouage bu mën a duñu gérer loolu du du yëfu nit koo xam nga si lu ma jàpp loolu laay ko